إلى ولي Euh, jërë ngeen jëf mbokk yi ginnaaw gi leen yoo jaajëfal leen bu baax a xam ngeen ne ñoo ngi si dëkk bi nga xam ne moo di Touba euh, li ñu fi andi du leen lu dul ne moo di màggalum euh, Seexul Xadim gi nga xam ne moo di 18 safar ñëpp xam nañ ne Seexul Xadim ne woon na bu bis jotatee la ko tàmbalee ca ginaar ba ca gëléem nañ ko ko santale rawatina fi nga xam ne moom la ñu ñëw moo di nindi nindi nag li ñu fi du leen lu dul moo di daral bi gën a mag ñu jéem see seet si ñi nga xam ne ñoom ñoo ñee ñoo di éleveurs yi wala ñi nga xam ne tey ñoom ñoo ñoo yor li nga xam ne moo di gàtt yi ñu xool tey marché bi nan lay demee si loolee dinañ jëm si jaaykat yi dékkal leen micro bi ngir ñoom ñu waxee nag jënd ak jaay bi nan lay demee ndaxte mën nañ wax ne daralu ndindi bi bokk na daral bi gën a mag si Touba. jëriñ ginnaaw gi ñu leen yoo tey ñu ñëw fi nga xamne moy ci daralu nind bi euh ci historique lan nga ñu mëna wax ci daral bi ñu nekk ni waaw ginnaaw bu ñu yalla jullu ci yonent bi sant suñu wa ñaay wa jull sant serigne Touba Mbacke jox jëre jëf serigne Touba jëre jëf serigne Touba jaaraama Cheikh rafal jëre jëf suñu yaakaar tay ëlëk serigne Saliou Mbacke ñaan yalla yok ay leeram taf ci barkam wa ñoo ngeen ci daral gu mat daral gu mag nak ndax daral gi bu xolé moy daralu nind bi waaw serigne Touba ko fi dagg nekk dara gu mag a mag mag dara yi ngay gis ci Touba yëpp yi mooy dara gu mag bi. cosaan gi moom sanc bu metti lan ko sanc bi ñu fi ñëw moom dara nekk fi li nga fi gis lépp nit ñi ñoo ko fi def ci sëñ bi sëñ bi ko yor itam mooy nga xam ne mooy sëñ euh, euh, ñoo ngi ñaanal sëñ Muntaxa mu yàgg fi di wér di ñaanal kilifa diine yi ko nga ko yëpp. gaa yi fi nekk yëpp ay jàmbaar lan ñi nga fi gis ñëpp kenn ku ci nekk loo daw sax njaboon nga ko yóbbu suñ sañoon nag ñu defaral na ko ba mu gën a baax. dara bi cosaan bi am na lu ma ci xam moom ndax man yàlla def na bañ joxe bañ koy natt ba tey man maa ngi fi te ci conseil dara gi sax man yàlla def na ci laa bokk dara gi macha allah moom ñu ngi sant bu baax na léegi gi moom wax dëgg yàlla macha allah jur gi bari na lépp bari na ah boo indee sa programme soo na ko jaay bu fekkee da ngaa bëgg fi boo bëggee xarum deux cent mille ba cent mille boo bëggee ndogu un million yaa xam sa programme fu mu toll boo dikkee daal la jaay la suur macha allah waaw. màggal gi moom ñu ngi si moom ndax. maanaam soo gisee lii xar yaa ngi ñëw nag yaa ngi ñëw gëlëm yaa ngi ñëw bëy yaa ñëw te lépp macha allah daal lépp Serigne Touba lañ koy defal bisam bu màgg bi waaw. mbir yi euh, yomb na wala. waaw lépp yom euh, jafewul quoi ndax lépp loo am rek loo lu sa doole tolloo rek di nga ko am waaw lépp daal yomb na daal macha allah. xar yi moom yokkuñu ko séeruñu maanaam bu fekkee da ngaa yor cinquante mille bëgg xarum cent mille du sotti. bu fekke da nga yor deux cent cinquante mille dëgg na du soti kenn ku ci nek dal la nga tollool dang koy jënd amna fi lo fi am tam tollool ko xey bobu bo ñëwee dang ci jot. bo la yor may jaay frox chaaya mm. waaw mom la jaay si fii quoi waaw. Mm. Ah, daral bi nan lay démé jamono gi jamono gi de ah jur de cher na mom cher na torop torop torop torop jurgi mom cher na. bay lu mu tuuti tuuti juróom-ñetti junni lañ lay wax. cher na dama wax deug yalla ta xaas amul. kontante ak bekkay ndax gi ma sha allah gis nga lepp gàtt te lepp di sar moko waral si sawar moo waral lii lépp loolu moom moo ko waral ñu ngi ciy kontaan wax dëgg yàlla macha nit ñi ñëw nañ mais gan ñi ñu ngi ñëw wax dëgg yàlla ñun ñoo ngi leen di fas yéene teertu teral leen berneel leen defal leen lépp daal nag am fi xar na fi béy amna fi gileem am fi lépp amna fi lu waay bëgg boo ñëwee dañ jàpp nga jot si. xar yi bu fekkee xar bu jigéen la bu xaw mi ngi tàmbalee ci ba bu xar bu mag bu jigéen mën ngaa am cinquante ba soixante ba bu dee xar bu góor mën ngaa am cent ba cent vingt cinq ba cent cinquante ba cent quarante ba deux cent loolu moo fi am ba deux cent cinquante. dix-huit safar euh, ñu wax ko dëkk Touba lan lay yokku si daral bi. dix-huit safar moom yokk na fi lu bëri ndax daral gi kenn ku nekk da nga fi gis si bopp ñi nga xam ne bi dañuy jaay ndékke di jaay cagri ñii di jaay crème ñii di jaay café ñii di jaay ataay kenn ku ci nekk yaa ngi gis sa bopp loo fi indi daal te teg ko ci yoon da nga ko jaay. ñi ñoom ñi ngi ñëw nànk-nànk mais xam nga instant yi ajjuma gi quoi te màggalu suñ tubaab gi moom xam nga léegi boo xoolee presque ñaari fan la rek diggante ajjuma ci ngoon samedi dimanche mooy mooy dëbb dëbbal bi dafa tey boo fi ñëwoon suba si samedi gi wala dimanche doo doo am sax foo jaar di nga réseau sax da problème da nga am sax problème mu réseau ndax mbooloo te ñëppay jógandoo damay instant yi yi nag ñu ngi si yoon bi di ñëw nànk-nànk quoi a waaw dalal gi moom alhamdulilah ñu ngi sant yàlla daa ñu ngi fi ñëw daa ku nekk daa da nga fi ñëw même boo fi ñëwee loxo neen yàlla dana dimbalee nga jël sa xéewal yaa ngi dégg nga dem ñibbi wax dëgg yàlla macha allah neex na daa wax dëgg yàlla neex na trop waaw macha allah ñu seer sax waaye yàlla baax na moom am na ndax delloo ma rek ngay wax lii affaire yi seer kuy jënd am delloo ma rek ngay wax déedéet organisation bi amut ay jafe-jafe dafa ñu war a am place ñëpp dagal nañ leen place gan yi itam teeru nañ leen xanaa ñu dimbale leen rek comme ñi nga xam ne bii dana yor ay taabal ak ay kii di jaay ñu leen di wàññal place yi leen liñ leen di dagal dafa xaw a seer dañ leen war a defal yërmande kenn ku ci nekk ndax ñoom itam ñi ngi jooy ndax itam xam nga jamono dafa xaw a naqari te réew mi xaw naa xaw naa tàggatéem daal xam ne gouvernement bi jàmbaar la mais am réew bu dee yokk itam nit ñi dañu yokk mën ngaa def li nga ja sa kemt lay kàttan waaye ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp mënuñoo am mbégte. macha allah quoi ndax fii moom amul problème ndax ñu ñëpp ay taalibe Sëriñ Tuubaa lañu te nit ku loo moomul rek doo ko yóbbu waaw ndax sëñ bi yarewul nit ñi loolu waaw ku nekk nag la nga la sa rek ngay jël loo moomul nag ba fi la sëñ tudd quoi waaw boo bañee xaayu sa tur nag yaay def loo xam ne sëñ bi àndu si mais li sëñ bi ànd nag moo si nekkee rek jàmm rek la ñu am te fii yaakaar naa ne ay milliards moo fi ne te kenn ku ne soxlawul yëfu jàmbur. sàmm yi li am na am nañu problème bi am mooy sàcc. sàcc jur moom moo problème lañ gën a am moom mu gën ñoo métti ñu gën ko am aussi xont bi seer na élément bi seer na lépp seer na loolu moom wax dëgg yàlla luñu luñ bëggoon gouvernement bi jàpp lañ ci wala sécurité ñu gën a am sécurité mën a sàmm ñu sàmm suñ bopp sàmm lañ suñu alal sàmm lañu kaaraange lépp daal waaw loolu lépp loolu yittewoo nañ ko ah am na ndox bëgg na ndox bëgg courant bëgg lépp daal sécurité bu mag. wàllu sécurité moom wax dëgg yàlla service d'ordre yi fi nekk jàmbaar lan mooy gendarmerie bi nekk ci wetu Ndindi ñoom ñoo fi monté guddeeg bëccëg ñu ngi fiy circulé xañ na nag bëriwul suñu fekkoon ne mënoon nañ leen a yokk ban xaw a bëri dana baax. garde ne itam su mënoon a yokk personnel bi am na solo ndax ñoom itam ay jàmbaar lan waaye bëriwul. jafe-jafe moom ren moom bëriwu fi ndox lan doon tiit ndox xaw naa am courant bi daal moo xaw a manqué moom yenn saa lamp yi moom am na ci yoo xam ne bu ngoonee du tàkk yooyu daa war a tàkk ila wali